rafet wala. waaw ça ñoo ngi leen di nuyu du leen sant du leen gërëm waa tali bi moom yéen a ko gisandool seen bopp fii sax ngeen gis mais soo leen duggoon ci biir ci lay gën a doy waar tali bi fii dara baaxul ñun xaw ma ndax am nañ maire xaw ma ndax amuñu maire xaw ma ndax am nañu ay autorité xaw ma ndax amuñu ay autorité mais fii amul lu fi baax tali di di tali rek ci wàllu jumtukaay ci wàllu leneen ak leneen ba ci dëkkuwaay yi soo tourné woon léegi nii da ngay gis ndox mi. nga xool ni ndox mi mel ak xet gu bon gi ak ndox bi nu muy balle ku bala ngaa wax tali bala ngaa wax tali da ngay wax dund gu baax mais ñun amuñu dund gu baax amuñu dund gu rafet tali nag waxi nopp te lii ñi lii di dem suñ demee ba ci kanam ba ci kanam mais da nga ci gis leneen loo xam ni dina retourné waat ci leneen loo xam ni yéen yéen seen wàllu bopp yéen ñi taxaw di laaj foogu woon ni ndax loolu dina fi am fii amul lu fi baax si pour ma wax la ko ci gàttal tali muy tali di dëkkuwaay di leneen ak leneen dara baaxu dara baaxul fii ci Yoff tey dëgg gisaat sama beneen morom boo xam ni comme man la mel di jeune nekk fi dina la ci wax lu leer a leer a leer am na yoo xam ne sax dañ koy jëlale mais bala ngaa wax tali di nooy lu baax di nooy xet gu baax di dëkk ci dëkkuwaayu melokaan goo xam ne ku fa dëkk dina la nawloo mais ñun kenn nawloo wuñu xam nga tal soo gisee tali bi xool ndox mi xool leneen ak leneen ak leneen da nga xam ni fii dara baaxu dara baaxu. yoo gis dëkkuwaay bi rafet na loolu que fii mooy apex si koñ bi la. mais tali bii moo gën a bon si si moo bon mu yàkk dëkk bi est-ce que yéen seen maire bi mus na si ñëw seet si loolu wala yebal na fi ay nit. maire bi amul jotam maire bi amul jotam su xëyee xamul lu mu xam fu mu lijjantee lu mu def ci poosam amul jotam. amul jotu kenn xam nga am jotu kan la am lu mu def ci poosam fii ki kenn liggéey ba ngaa dégg-dëgg muy maire muy autorité muy député kenn liggéeyu fi. kenn ligue fi te li wax na ko de ndax ñom maire autorité député di ministre ak ku doon kenn rien dara amu fi. lu muy perte ñun ñoy perte ñun donc comme yoy mel non nous, xeyna ñun jeune yi fi di xalaat di nango wax ci micro rien que pour ñu ñu solution mais pas pour ñuy déconner wala lolu non ñun duñu pas façon façons.

mais état dama yaakaar na ñun au moins daan nañu jàngal à l'école que ne état continuité la n'est-ce pas mais am na loo xamante ne nii bu xewoon feneen ils vont réagir mais Yoff la xewee nañu réagir quoi franchement ngeen baal la. fii lu fi baax yéen a ko siw ba ñëpp xam ko waaye lu fi yàqu it yéen a ko siwal dinaa dégg si samay lenn si sama ay sëriñ ñu leen kay ñu leen ñu leen di teg baat boobu su ñoom laa ko jëlee nag du sama xam-xam waaye nag ngeen góorgóorlu.

yàlla dimbali leen ba ñu am xelam gestu ñu ndax ñun ay citoyen lañ dañ doon voté ay citoyen lañu dañu doon voté koom ñëpp donc am na loo xamante ne nii aussi nit ki.